bismillahi rahmaani rahim lool uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu di bu tedd bii sëriñ Muhammadul Muntaxa Mbàkke hafizahullah yàlla ñaan sunu borom yàggal leen fi lool Mbàkke te ngeen wér te ne xam ne yéene ngeen ko liggéey sëñ Tuubaa nga am si lu kawe njort yépp te liñ koy faral di ñaanee rek Mbàkke nga matale bépp yëngu boo xam ne rek sumb boo xam ne sumb ko sunu borom kàtt na la si daraja sëñ Bassirou barke Cheikh Moudou Moustapha sa jëmm ji lay ñaan yàlla sama borom nga mottali lépp ñun ñëpp ñu ànd ko fekk ko te ànd kook ak yow ak murid yëpp di nuyu it mboolem sa mbokk yi tedd yi di njaboot sëñ Tuubaa yi teew fii bis bi bañ ko yëgee ba léegi ñoom ñëpp teew nañ di jiital sëñ mam sëñ mam soxna mam Buso mu sëñ Fàllu it moom it sa rakk jooju teew na fi sànq la yóbbante rek ne nañ la jottali ak nuyoom mu doon kenn koo xam ne moom it ci biir liggéey bii la ànd kook ñun lépp lu ñu yëngu rek mu ànd kook ñun di nuyu mbooleem waa Daaru Minan mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk yépp sant war nañu baax a baax boo xam ne Mbàkke dañ leen ko seereel ndax tey ci mi du tey lañ fi njëkk ñëw am nañ tawfeex gu rëy tawfeex gi ñu am nag mooy Mbàkke dañoo jóge rek nga doon suñ Sëñ Tuubaa te loolu Sëñ Tuubaa ci bopp moo ko tamponné ndax bañ jógee ah Sëriñ Tuubaa Sëñ Mouhamadou Lamine boole ñoog yéen Mbàkke da tegoon loo xam ne nag lu yéeme la ndax boole naa leen ak teg si nag muy seen sëñum Tuubaa kon Mbàkke du tey nga doon suñ sëñ Tuubaa waaye nag jekk da doon suñ sëñ Tuubaa ñoom taw feeg bu ci rëy nag la ñu waxoon ne ak fatu la ndax daaru minam ku ne xam ne kër sëñ Tuubaa la kër sëñ Basiru gi ñuy taw féexee nag Mbàkke mën nañoo sant luñ sant rek doyul nga xamal ñu màggalee daaru xuddoos de gàmmoo daaru minam de yéeg leen ne fàttu la jamono boo mbàkkee yaa ngi nekk njaareem waaye danga ñu waxoon mooy boo sañoon looy def Tuubaa nga koy defee te alhamdulilah rabbil alamin loolu teewee nañ ko kon loolu war nañ sant yàlla nga dël ñu fii nag si sëñ Basiru dël ñu fii si sëñ Tuubaa ñu ñëw fi fekk fi ñoo xam ne suñu kilifa yu tedd yi yu mag yi sëñ Modou Abdoulaye mu ko limee rek mel na lim ñaa ñëpp mbooleem gàmmu yi fi taxaw taxawu nañu suturaal nañu jàppale nañu dimbali nañu loolu gàmm gi nag dañ ko def waaye rawatina si bis bii ndax daanaka lu jege ay bis ñu fi ñëw di daf ay tànt di waajal waaye lépp loo xam ne lu aju la ñoo ko taxaw ci tàngal kafe du ñu jox di jël seen xéewal duñu jox loolu yëpp tawféex gu rëy rëy la te waaye tawféex googu nag dañ ko jànge si yéen rek Mbàkke ndax sëriñ bii de démb daa wax ne moo sasoon lépp lu jëm si suñu añ ak suñu reer te lool noonu la ko defee gàmmu gu ñu ne ndax lam ñu daan wax naka jekk rek mooy lépp loo xam ne yëngu leen ko rek dama bëgg ngeen moo wax sama wàll ma ko joxe ñu ko ñëpp joxe ndax si yéen laa bokk mbàkke lool fer bi war na démbit it si taxawaay boobu kon sant gi moom fu ñu ko natt rek weesul kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax waa Daaru Minam ak kilifa yëpp si taxawaay gi ñu taxawee mbooleem ni ko sëñ Matar waxee sànq mbooleem daayir daara yeeg daayira yi nga xam ne it bis bi it bañ ko yëngalee bu jigéen yëkkatee ba léegi ngir sëñ ñoom ñëpp def na yiite ju mat sëkk yaakaar naa lim na ko sànq si mbokk taalibe yooyu ba suñu mbokk taalibe Hizbut Tarqiyyah teew nañ démb daara ja ñëw nañ fi tiit añ ko ànd kook ñun taxaw si biir liggéey bi kon loolu yi Mbàkke dañ leen seereel ne euh, dañoo bokk loo xam ne mën ñu ko séddoo muy sëñ Tuubaa kese noonu lañu sant waa mu faatu Bichri di sant ñi nga xam ne mooy mu xaddamatul xidma di mboolem dayre yëpp yi nga xam ne ànd nañu ak ñun liggéey bi nga xam ne mi ngi fi kon Mbàkke ñu ngi lay seeral sant goo xam ne sant nañ ak yëg goo xam ne yëg nañ ko seen taxawaay ci wàll woowu di sant yi mboolem Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos ñi fi teew ñëpp nag ko ne xam ne Europe jafe na ci mbas ma fa ne waaye mboolem daayira yi nga xam ne nekk nañ bitim réew am na ñoo xam ne ak jafe-jafe yi la mu fay nekk nekk teewul ñu ne bis bi day ñëwal seen bopp fekke ko mu yi ñi xam ne nekk nañ ko loolu it Mbàkke am na ci fañ ko teg rek ñoom mooy inal la zina ila sarsaara xat xasado ziarati faaraxu daari naw zaara te yaakaar naa loolu ñun àggaguñ fa mag ñi jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon jànkoonteel ngir dem fekk sëñ Tuubaa ci gànnaar mu jafe-jafe yu tar yu metti teel doo boo génnee bitim réew sax daanaka avion ngay jug wàcc réew mi foofu jugee da ngay dugg wàcc kon mel na ne àgguñ foofu kon ñoom wax nañ teew nañ noonu la it mboolem ni ñu ko waxee sànq si membre yi daara yi daara yi xam ne am nañ ko si biir réew mi te fenn fu nekk Mbàkke kër Sëñ muy Ndakaar di Tuubaa gii di Kaolack di Caajaay di di di di di di di di Louga du Jurbel du Thiès bu mu limee ak ngaay day bari fenn fu nekk kër Sëñ boo xam ne lii fi ndongo yi doon wane te ko si yéen rek ndax ba nga ñëwee la nga jëkk taxawal si projet bu mag projet université xam ne ñu ngi ko estimé ay 37 milliards loolu wane ne wane nga aw yoon woo xam ne murid dañoo war a jàng murid dañoo war a yaraw nit dañ leen war a jàngal te yar leen la sëñ Saliou doon wax rek ne sëñ Tuubaa de képp koo ko mas a jox sa doom na la wax na ko yar jàngal ko te liggéey loo ko loo tax Mbàkke ñu ngi seere ne mbooleem daar yooyu ñu fi tudd yëpp ba siy nekk si bitim réew ay kër sëñ la yoo xam ne ay daara lañ daara yoo xam ne jàngal yar ak liggéeyloo comme nii ñu demee rek moom lañ fa defee loolu it euh, ñu ngi sant bu baax a baax ndax nii si gis tawféexu sëriñ Tuubaa mi xam naka jekk moom it ñaanal dikk nañu si loolu bu baax a baax a baax kon it ñu ngi sant mboolem ñoom ñëpp di membre historique daara Xuddoos ci biir réew mi ak ci bitim réew sacrifice yi xam ne def nañ ko bañ wootee bis ba léegi si taxawaay bi nga xam ne moom lañ taxaw ah, gannaaw bu loolu wéyee di Mbàkke dañuy ñëw di feddali rek ne sa alal lañ ndax sanq bi ma fàttali sëñ Mouhamadou Lamine Bara ba mu ñu boolee nga ni taxi yi yaay suñ sëñ Tuubaa dafa jiitu ci wax ji ne alalu sëñ Tuubaa ngeen moomee la sëñ Tuubaa ngeen sëñ bi boobu nga doonoon suñu boobu lañ doonoon sa alal bis boobu lañ doonoon sa moomeel sëñ Tuubaa jullit yépp ni ko xale yi waxee sànq si aaya bi nga xam ne na laajtere mina mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannata jullit bu nekk da jaay sa bopp suñu borom noonu lañ lay jaayee suñu bopp sëñ Tuubaa sëriñ bi sëñ Muntaxa kenn moomuñu ko dul yow jaay na ne suñu bopp tey jaay na suñu bopp ëllëg say alal lañ say jumtuwaay lañ te loolu jiitu na tey ci loolu nag wóor nañ sa kàttan fu ne àgg na fa ndax da liggéey yàlla suñu borom am ngërëmu sunu borom ba tax na jekk nañ ci lu mënti doon mbàkke sa alal lan sa jumtuwaay lañ maa loo bëgg a def su noonu def ko loo ñu digal ñu def ko foo ñu joxoñ fa lañu gis jàpp nañ tëlewuñ dara mën nañ lépp ndax sa kàttan doxe kon Mbàkke jekk nañ loolu bëggoon nañ ko dolliwaat bu baax a baax a baax si pas-pas bi nga xam ne am nañ suñu digganteeg yéen di sant bu baax a baax si fànn yëpp yokkute gi nag bañ àndee ba léegi gis nañ ko si fànn yëpp da ngay mujj dem ba day am kersa suñu digganteeg sëriñ na wóor ne sëñ Mbàkke sëñ bi tegtal na dimbali ñu suturaal nga ñu taxawuñu ci fànn yëpp kon euh, euh, loolu bokkoon na ci li xam ne lu ñu bëgg a doon euh, kàddu yi gàtt rek xam naa dana diis lool si noonu waaye ñu jottali ko rek Mbàkke sant nañu baax a baax mbooleem Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos yëpp daal sant nañ la di ñaan nga yàgg fi da ànd wér te li nga yéene yëpp nga am sul kawe njort yëpp wasalaatu wasalaamu ala xam naa sëriñ bi nii mu ko waxee noonu rek la dafa am loo xam ne rek danañ ko ci boole mooy na la wóor ni sëñ Moussa ak sëñ Cheikh Abdou mii loo war a def wala loo war a wax rek def nañ ko wax nañ ñu ko kon nag na nga xam na nga xam ne Mbàkke lépp loo leen digal rek def nañ ko ba def lu ko lu lu kawe suñ jot jërëjëf taxawaay na taxawaay bi lépp rafet na jërëjëf Mbàkke